nga jël bus jënd ko France wala jënd ko Europe amul. Euh, porte bagage porte bagage waaw amul Versailles. yow nga indi ko état bi ni bu si def porte bu si def Versailles. nga jël sa porte yóbbu ko si ferrailleur mu defal la porte bagage defal la Versailles bus bi di daw di romb les autorités publiques kenn du waxtaan. Eh, waaw amatul équilibre amatul. mais c'est-à-dire xam nga droit dañ ko defar. Hmm. pour protéger les la société. Hmm. pour protéger les gens contre l'État. contre l'État ak contre euh, les ak ah, contre les autres quoi en fait les malfaiteurs. entre nous entre nous war projet ne projet c'est-à-dire euh, un règle des des règles de vie un espace de vie boo xam ni minimum boo xam daanu d'accord sur les règles loolu lay droit loolu lay def mais su fekkee nag léegi droit boobu amul dara lu ko garantir. mais ku nekk lu neex lay def. man tey su ma neexoon su ma su ma sàccee sa montre bu rafet bi dara du si fekk. mais damay ñëw foqati dem. mais loolu moo fi am moo fi am. mais on est on est d' accord l' anarchisme. c' est à dire tey jii état bi voté voté na loi bind def yëpp kii la hmm. application bi. Hmm. dañu on doit y veiller. man tey su ma loué kër 500000F état bi ni ma léegi 450000 euh, ngay fay. sama locataire bañ ko wàññi mais su ma weer demee damay jël quatre cent cinquante mille jëm yóbbu ko fonds de dépôt et de consignation ñu sama location bi pop. jeex ah, foofu waaye su ko bañee jël ko foofu jeexam. loolu la loi bi wax. loolu la loi bi wax léegi nag dans la pratique dans so soo demee cause de la jox papier pour wane ni fay nga location ma nga foofu waajee ko ba njël ah, loolu la loi wax loolu ngay def. mais ba ci ba ci wala su toog su à part yow su fekkee ni d'accord waa ji defoon da nga ni quatre cent cinquante mille lay fay mun la cinq cent mille ngay fay mais y a des des organes qui sont prévus pour intervenir sax da nga yóbbu police. waaw ah da nga yóbbu police. ñu déclencher procédure. mais sénégalais yi c'est-à-dire sénégalais yi xeex seen droit itam daf leen ko jaralul quoi enfin xaw ma daf leen ko jarul wala xeex ko si mbedd yi mbokk yi moo leen ko gënal ah. mais procédure si am beneen affaire gis nga état

décision de justice bi. mu assemblée nationale jàppale ka. mu xam nga loolu ñun nous sommes tous en danger dans ce cas. Ah, ki nga xam ne boo jaaxlee ci moom nga war a. waaw xujee bu dee moom teguwul ci yoon fan nga jëm. professeur donc y' a y' a une possibilité mun nañu abroger cette loi là mais nan lañu war a jaar par exemple bu lay loi bu mel ni foofu. non euh, c'est une loi pour dugal ko. assemblée nationale député yi wala soit député yi def proposition de loi soit gouvernement bi def projet de